taalibe yi fi teew yëpp te dara yëkkatiwu leen lu may istajibu lillahi wa lirrasul iza daakum li diinihi mooy ñoom ngir wu si wala seen tur kon sëriñ bi mu sëriñ bi nee na ñu ngi sant di gën bu baax ci sa yitte sa taxaw ndax mooy bu ñu ko tuddee rek tuddee waa daayira Touba ca kanam Nour Baye ñëpp ñu di am solo yi ñu fi bi dafay ko di nuyu mboolem ña topp seen ginnaaw bu ñu ci tuddee Serigne Cheikh Abdou Ndeye Mbacké moom moom ñoo ngi xam ne moom lañ dénk liggéey moom mu jàmbaar ci taxawaayam bu Serigne di nuyu Abdoul Fattah Gueye bi nga xam ne moo jiite daayira bi ak mboolem ñi si ne ñëpp ku mel ne Serigne Abdoul Ahad Mbacké Djili ak Serigne Moustapha Moussa Abdoul Fattah si ci ginnaaw yëpp di jàmbaar boo si dugg Serigne bi rek kon Serigne bi war ngaa sant yàlla bu baax ndax Serigne Touba dafa liggéeyal Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba suñu borom fayee ko lépp lépp lu mu yéene woon bokk ci dëkk bu sedd bi itam suñu borom jox ko kon nag tawféex ji mooy yàlla doon mu jaar ci yow waaye Serigne Touba li bëgg kenn mënu ko te am. kon nag ku am tawféex yi mu jaar ci yow war nga sant yàlla bu baax te ni ko Serigne am sa waxee kilifa yi jëkk yëpp waxe ko ni loolu moo di am suñu si àll yi wax na ko moom mii ne ci seen kanam. yitte ba posté taxawaay ba tax na ku ko xam ku ne da xam ne amul dara looy xool ci lu dégg ndax moom ba mu jugee ba léegi yitteem yëpp génn Sëriñ Tuubaa tàmbalee ci Sëriñ Tuubaa yem leer lu sëriñ bi dugg ci mbirum àdduna dugg ci mbirum politique dara itteel ko ñooy Sëriñ Tuubaa foofu fekk maa ci alxuraan yi ak xasida yi ak topp tootaan yi Sëriñ bi mel noonu nag ku yàlla def tawfeex mu nekk ci sa kanam war ngaa góorgóorlu bu baax ndax moom it wóor na ma ne boo xamoo ko da seere ko ndax ñu demee ndax mënu ma ko seere waaye dama koy seere ci doon taalibu Sëriñ Tuubaa ku topp ci ginnaaw ci Sëriñ Tuubaa képp la jëm ne dee leen moo te jaar te ngir ma ndax kuy fital ku nekk fu fii nii waaye inna haza siraati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subul fata'lamu an sabiilihi kon moom mii ñu ngi koy ñaanal bu xam ci moom ci yitteem a ba mu te mboolem ñu bokkal Sëriñ Tuubaa ngeen déggee Cheikh Mawone fi nekkal Sëriñ Tuubaa laata muy doon Sëriñ Tuubaa boobu ak Cheikh Sidi moo fi nekk dégg ngeen kaddu yéen yëkkati wax leen loolu ñu koy tey ñëpp a wax na ma ne sëriñ Sidim Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nee na ko bu ma la séeram nga tàbbi ci kàmb. maa ngi soog a ah, loolu seer mënut a jot kaw. sëriñ Dame Atta dégg ngeen jëf ñu ci jox sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou lim ne may musuma gis mu def ko mu yëkkati kàddu soññu tànn bi wax ci xalaat loolu. te mu war a njëboon suñu tubaab yëpp nag. muy sëriñ si am suñu soxla sëriñ am sëriñ amoo mi kilifaam bari na ko boobu ma sant bitim réew mooy soññi taal bi ci liggéey ñëpp kon amul ko des ndax boo limee da ngay juum waaye njabootu Sëriñ Tuubaa gépp te njabootu Sëriñ Tuubaa gi ci sëriñ bi war nga yaakaar Sëriñ Tuubaa kon kenn génn ci kon daal Tuubaa ci kanam ñëpp xam nañ ne dafa wuy si rek di Sëriñ Tuubaa duggoon ci yoon bi te yoon bi tàmm ko di doxee dafa ñëw ngir jëmmal ndax Serigne Touba ba mu nekkee ci njëriñ ba mu wootee ca ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett boo waxoon wax ju am solo jëm wax day gudd ndax jotaay bi nit ñi dañoo sonn waaye lan ca waxoon mooy lii lépp lu ngeen sombati ci lépp loo xam ne lu ngeen soxla na rawat na lu jëm ci néegu yàlla wala lu dem. na ngeen ci góorgóorlu ci seen kéem kattan. Hmm. def ca la ngeen ak li ngeen mën ci seen kattan yam ngeen dem laxasaay wutu ko ci bu seen ci seen kattan yam ngeen tu xaar fa seen jamono baax wu siy gis te rek waaye maa ngi leen waxtaanee ko lépp ndimbal loo xam ne bu leen fajale seen aju itam daa leen xañ seen ngor xañ seen xañ leen seen jiw daa koy firi lu gudd la moo ko waxee ci ak waaye kon lii ngeen la sëriñ bi waxoon ne ku la man a sañal la yéen gisinu sëriñ Tuubaa njàngale moom da ngeen di jublu dégg na ko loolu nag gëm naa du ngeen ko wàcc moo tax 2016 di ngeen sosé daayira bi waxoon naa ne nee na seen daayira ni ñëpp ci am yaakaar li tax ñu am ci yaakaar nag mooy yéen ñi ko jiite dañ xam bu baax a kenn xamu leen ci lu dul liggéey sëriñ Tuubaa kenn xamu leen ci lu dul li yàq ab daayira rek ñaar rek la moo laa ne ko mooy xëccoo dara ji ak ñett ak tàbbi ci mbiru ko ci ndax mbiru Sëñ Tuubaa dafa nanguwul ko boobu ba léegi ni yàlla dimle li fi jaar bari na lool waaye kenn mosuñu ca dégg tàmm dañ ci Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa loolu nag mooy seen gànnaay moo moo leen ji itam nag moo tax xolu taalibe yëpp noonu te Sëriñ Saliou Mbacké daal wax na fa xolu taalib yi jëm rek fa la xolu Sëriñ Tuubaa bi. te nattu yi Sëriñ Tuubaa yi dëgg yëpp kooku ci tudd cofee nag yëg-yëg moom ci am kon nag yàlla ba di ngeen bëgg a di Sëriñ Tuubaa ci dëgg bi lépp mën jëf ko mën ko seen yoon. ba tere Cheikh Issa Diène ne ne wagoo saxaar. bu bopp ba doxee rek li ci ginnaaw yëpp dox. dëgg la de kon yaa dimbali leen ngeen am njiit du dox. Serigne Abdoulaye daa wax ne am na ci ñoo xam ne dañuy dox doxal a jël boo rek ma wax ko. mu ne gaynde rek bu toppee ci ginnaaw bukki bu yàggee aw doxee nañ jeex kon nag ku jub dëgmal Serigne Touba war ngaa fexe ba topp ci ginnaaw koo xam ne day wax. dëgg la yéen nag yàlla defal na doo fi am. kon ñeen xam ne yor bi mosuñu bu ci lii ndax jumaa njariñ loolu ko liggéey seen taalibe seen tubaab ñoo ko santaane raay bii ak Cheikh Mahmoud Moustapha mi njëkk a wutu Serigne Touba ba mu koy woote ñëpp jàpp nañu lu mënti nekk la waaye yitteem ak procédu ak doomam moo tax moo tax xaw ko bañ maa tàmbali di waay ak Cheikh Mahmoud Fadil bi muy toj carrière ba ngir àggale jumaay seen Tuubaa yi booba jamono yu jafe la woon ndax dafa fekk crise bi door a jeex mhm. waaye doogu taal xam ne Sëriñ Tuubaa li mu bëgg dara mën a am moo tax mu liggéey ko ba jumaa ji àgg lépp mu indi jël ko ci nekkam ginnaaw bi tam Cheikh Abdoul Ahad moo njëkk a tudd ci làmmiñam ne dina woote miliyaar wallaahi ba mu koy wax nit ñi dañoo jàppoon ne lu mënti nekk la te sëriñ bi dafa xaw mu leer wala dafa xaw fi jamono toll waaye la nga waxoon ci loo xam waxtaan wu ñu rek mbay ma nangu xol yi ñoo bokk gën a wóor te xol yi nangu nañ sëriñ Tuubaa te duñu ko gàttal. ginnaaw moom Cheikh Abdou Khadre Mbacké ñëw yàggu fi sëriñ Saliou Mbacké moom itam yàlla def na liggéey bii ngeen ñëw ngir fas yéene ko def ci dëkk bi. muy ci wàllum assainissement bi Serigne Saliou Mbacké moo njëkk a génne ci alali boppam wóotewu ko woon sax moo tax ñu bari xamul ko mm-hmm. def assainissement ci li ci biir dëkk loolu kon mooy li ci njëkk am ginnaaw bi ci toppaat loolu ci am waaye Serigne Saliou moo njëkk a génne ci alal def ci lu war six cent millions ci jamono loolu yàgg na ginnaaw itam tam moom Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw ba mu ñëwee itam ñu defaraat assainissement bi yokk ko ba Kanko Arona bi ak kër doomu Sëriñ Tuubaa yokk ba ak Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké ñëw bi mu ñëwee itam 2012 yàlla def mbënd mu métti am ci dëkk bi mu wóoloon ba ma ñëw mu xamal ma ne damaa bëgg tàmbali. assainissement bu ci dëkk bi daa gis saare ke dëkk bi ndox mi bari na lool mbedd yi kenn mënu fa jaar nekkoon nag damaa fa séeré yëkkati un milliard def ko ci assainissement bi tàmbale ko nii ba yàlla defee mu xalaat ko yëkkati ko war ko ci def bi ko ci jiite réew mi yëgee président Macky Sall ci la jël fukki milliard tàmbale ko assainissement bi njëkkoon bi ci liggéey kon loolu mooy liggéey yi fi fi weesu kon yéen bu ngeen jugaatee ngir xam ne liggéeyee Serigne Touba dëkku Serigne bi taalibe Serigne yi ñoo ci woon jiitu ñëpp ndax loolu mooy bëgg-bëggu Serigne kon loolu képp ko am yitte wala nga am positif wala nga am taxawaay war na leen cee jàppale bu baax a baax te jaayante yi ngeen def itam dégg naa ci wax ni ay kàddu yoo xam ne dugg na ma lool ndax. ni ko suñu joom Serigne Abdoulahi wax waxee léegi Serigne Touba ki joxe ak dërëm ak ki joxe milliard ci poche ba la. dëgg la daal wax ne addiye moo ko doon ñooyam xeebu ko ci dara poche ba ko joxe ca laaj. kon ña tàmbali woon di joxe ñaar téeméer ba liggéey bi ak cant gi ci ñoom la tàmbalee. laa yastawi minkum man anfaqa min qabli l-fathi wa qaatala ulaa'ika a'zamu darajatan mina llaziina anfaqu min ba'du wa qaatalu waaye nag wa kullan wa'ada Llaahu l-husnaa. ña mu ña mu mujjee ñëw te jëf-jëf ju mat it tàbbi nañ ci biir ña leen war yoon wane. Sëriñ Abdul Ahad Mbakke da daa def buy bëgg génn ci mbooloo bu laajee ku fa ne buñ limee wax ne diw ak diw fa ne mu daane. kara fa ne xam nga ni kër yu mag yu baaxoo rek buñ gisul borom dara ji rek ne ko moom ne ñax mi amul solo mu ne kara kara nga lim ay tur sëñ bi nee na ñoo ñeenti woy fa ñoo a itteel borom ñaar dërëm juróom yooyu ngeen xeeb bi ñoo ngi itteel xam ne ña ña am kàttu mën a jëf ëpp ñu ñi néew àll te a jëf kon ñëpp la ñu war a sant dañu sant ñi joxe ñaar ko joxe ñaar téeméer te seen possible ak seen doole tollu fa waaye ña joxe lu te am yitte jël possible bi kon nag ñu sant ñëpp di te xam ne ku ci dugal jëfam xam ne Serigne Touba la ko jëfale seere si Serigne Touba si seere waxoon na Serigne Massamba lu ne ko Massamba mu ne ko Mbacke ko na nga xam ne ak daam saan la daam saan mooy dencukaay mu ne ko kon dem mbàkki ñu fas yéenee doone lantinoo mu ne ko loolu de képp koo xam def nga ko danaa la ko dencal ba fa nga xam ne kenn mënu fa amul diw ne la si diw gaay yi kon liggéey Sëriñ Tuubaa nañ xam ne mooy suñu moo war doon suñu yitte ndax moom ji te xam ne kon daayira bii nii waa Kër Sëriñ Tuubaa yi ak bokk yi rafetlu nañ ko bu baax ndax Cheikh Abdoulaye Mbacke daa wax ne ku ñu jox addiya te doo joxe addiya te yaa ngi mel ne ku wut sa waxandew gaal bu mag ku fóot ay yéreem ba mu njëkk mu denc leen am denc la nga denc ba gaal bi fees boo yaakaaree ne am nga yére bu su suuf waajtaay bi itam ku agsi laaj yére nga yëkkati ba ñëpp jox ba yëpp jeex bu fekkoon nga denc sa yére yooyu waaj si biir gaal bi keroog bi soo rek am nga ci nee na fekk kilifa bu ñu jox addiya te bu jox addiya noonu kon yéen da leen dimbale sëriñ am satum daru mas moom maam Thierno dafa nekk ci kër Cheikh Abdoul Ahad ak yeneen kilifa am taalibe bu ko koo xam ab taalibe bi kilifa gi jëles yëkkati ñetti na jox ko dem siyaare génnaat kooku ne sëriñ am sa man de damaa am jaaxle ma ne damaa xamul taalib yi dañoo amatul posture wala dañuy gis naan mu ne ko lu tax mu ko kii de nee na man la yaakaar àdduna ak àllaaxira te addiyam ci man yoosuwul ñaar téeméer te daayira bi mu indi de wóor na ma ne ñàkk na ci lu ëpp ñaari junni ndax nag joxe na paas te dana tëdd lu ëpp junni kon loolu neexutu fii fii am na ko déedéet tey la taalib yi ëpp posture li ñuy joxe Sëñ Tuubaa tax ñu ko joxe. képp koo xam ne la koy jox rek ngir Sëriñ Tuubaa nga di ko jàllale ci moom ñu képp koo xam ne ñu ngi la koy te jàllale ko ñu jéggi def yóbbu ko directement ci kon seen liggéey la seen xel baax a baax te ngeen góorgóorlu ci baax a baax nag te xam ne gëm naa ne Sëriñ Tuubaa ñàkk na ko ndax li tax mu ñàkk ko li yàqoon yenn daayira yëpp yàlla musal leen kon nag yàlla na ci gën a musal te Sëriñ Tuubaa dimbale leen jaatandu leen ba fa ngeen bëgg jëm ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi ci dëkk bii nga xam ne Sëriñ Tuubaa dëkk bi rek ko ñëwoon fu mu mas wax na ko ci waxtaanu 88 bi la mu wax mooy diggam ak yàlla diggam ak Rasulullah ba ko ñeenteel mu dëkk bi mosuñoo gis leneen lu ko ñëw lu dëkk bi kon nag képp koo xam ne jur nga ngir liggéey Sëñ Tuubaa ci dëkk bi war ngaa daloon xel ci xam ne Sëñ Tuubaa dana ci def loo ko ndax waaye lu ko waaye ko gis jeexal ko rek la Cheikh Ibrahima Fall daa wax te fii la ko waxee woon sax dara ba ko sëriñ bi santé kër Touba bi mu nekkoon lu ma kilomètre ñun ñëpp jaaxle si ba am ñu ñëw di ko wax ne ko xanaa nga xamul sàng ni mu jafee fi ak fi àll toll suñ si am daal fekk nga néewuma xawma sàng waaye yéen itam xamu leen suñu tubaab ndax ñaawal nañ ko jaroon na nga dem ci sëriñ bi mu soppi leen di jëlee ndax boo dajaloon xaalis bi guerre bi dafa am ci réew mi bato kon dara amatul. moo ne ko néewuma xawma sàng da waaye yéen itam xamu leen suñu tubaab ndax sëñ Tuubaa du santaane mu ko dul am te lu ko sant mu ko dul def. Serigne Saliou Mbacké naat dafa naa nett lu bari nga wax ne boo ko Cheikh Ibrahima Fall liggéey liggéey na ko ba mu àgg liggéey bépp lu ci na ay tontu muy seng yaag tontu yaag lépp ay tontu kon mooy loolu loolu mooy liggéey sëñ Tuubaa. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax ne sëñ Tuubaa liggéey ko yomb na. ndax day féetewoo coono bu bàyyi asam kon nag sant leen bu baax te ñaan li ngeen yéene ñëpp daal yàlla leen di jëfiñ tubaab sëriñ bi leen di sant leen gërëm di leen wax ne lam leen waxoon nag na ngeen xam ne yitte mooy di am solo te yàlla defal leen ko kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah.